dalleen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV Sénégal kiñ dippee président Bassirou Diomaye fay di président de tous les sénégalais yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci relation bi nga xam ne ne dafa jaar ci diggante moom ak ancien président de la république bi ñu dippee Abdoulaye Wade waa tamit daal di koy jëmale ci relation bu jaar ci diggante moom ak ki ñu dippee Karim Wade di doomu kookee di président Abdoulaye Wade si li ni kii di président Bassirou Diomaye Faye ne ginnaaw ba ko sénégal yi taamoo daal di koy tabb ngir mu nekk président de la république si réew mii di Sénégal daal dina yëkkati téléphone am daal di oo ki ñu dippee Karim Wade daal di waxtaan ak moom balaa muy dal di former gouvernement am ci réew mii di Sénégal ndax ne li ni mel akum cër la bi nga xam ne ne kiñ dippee Abdoulaye Wade moom moo ko mayoon ndax kookee moo waxoon képp ku bokk ci parti bii di PDS ngir kook daal koy voteel ci élection présidentielle 2024 ñu génn ne li ni mel moo sababoon oo woon na kookee di Karim Wade kookee tamit dal di koy confirmel lu ko papam confirmel woon te moom mooy que ne dañ koo jàppale rek te yàlla tax waaye xaaruñ benn poste ci gouvernement bi ginnaaw li ni mel tamit kii di président Bassirou Diomaye fay ne ci Tabaski bi ñu génn daal dinay jël akum xar dal di koy jox kookee di président Abdoulaye Wade dal di ko koy ziyaare te ne bu sañoon day dem ba foofee que ñoom président Abdoulaye Wade daal di koy yóbbul xar boobee ndax ne daa xaar lu bëri ci kookee di président Abdoulaye Wade ci ay conseil ci nu mu nammatee réewu Sénégal mais lu mu defal kookee di président Abdoulaye Wade xeeb na ko ndax kookee jàppale na ko ba mu ko waree jàppale ci réew mi di Sénégal kàddu yu ni mel la ki ñu dippee président Bassirou Diomaye Faye di président de tous les Sénégalais daal di yëkkati daal di koy jëmale ci relation bu jaar ci diggante moom ak ki ñu dippee Karim Wade waaye tamit daal di koy jëmale ci relation bi nga xam dafa jaar ci moom ak ki ñu dippee Abdoulaye Wade di ancien président de la République ci réew mii di Sénégal.